Seydi Gassama maa ngi lay nuyu. Eh, maa lay fay maa ngi nuyu auditeurs yëpp Rewmi FM. ngay njiitu nag euh, li nga xamante ni mooy Amnesty International section sénégalaise euh, jamono ji tey ci àjjuma ji euh, li nga xamante nag mooy askanu Sénégal war nañoo wàcc ci mbedd mi loolu lan lañ ci mën a xaar. waaw xaaruñ ci dara lu dul manifestation bi am nu mu nu mu naree am ci jàmm. parce que li nga xam ne euh, moom la ñu bëgg a def maanaam dox ñaxtu euh, loolu charte réew mi moo ko reconnaître moo ko nangu charte Sénégal Sénégal si ñu tamit euh, ratifié ko au niveau international charte yooyu yëpp dañu maanaam dëgëral droit droit boobu kon citoyen suñu bëggee manifester dañu war rek informer préfet waru sa wut autorisation dañ koy yëgal rek ne ko préfet ñu ne ñu bëgg ko manifester pour que mu jëlee matuwaay mun a encadrer manifestation bi j'espère que loolu am. parce que loolu su amul n'est-ce pas day pousse citoyens yi n'est-ce pas ñu dugg ci ay défiance maanaam ñu bugg a seen marche malgré interdiction yi eh, mu àndee jàmmaarul ak takk der yi waaye suñ ko autorisé rek n'est-ce pas saa yu ñu ko autorisé Sénégal fii rek marche bi day jaar yoon kon maa ngi vraiment wax ministre de l'intérieur di ko woo pour que évidemment mu euh, jox préfet Dakar ay ndigal pour que mu autoriser manifestation bi ñu encadré ko te lépp loo xam ne askan wi wax na ko foofu parce que loolu mooy démocratie suñu ay citoyens dañoo mer amee ay préoccupation dox ñaxtu état daf leen war a déglul su dee état bu démocratique su dee moo nekk ci bopp état bi démocrate la kon euh, message bi tamit c'est important que pouvoir public déglu ko bu baax a baax. très bien est-ce que am nga yaakaar ni daañu autoriser marche yooyu li je crois que amul benn raison pour que ñu bañ ko autoriser parce que marche la boo xam ne société civile ak parti politique ay groupes yu organisé. Euh, n'est-ce pas am ay njiit responsable ñoom ñu koy organiser kon amul benn raison pour que évidemment ñu koy ñu koy ñu koy interdire. gis nañu tamit euh, création wu euh, FC muy club boo xamante ne daanaka bu yees la ku gi teg ko fi rawatina ñi nga xamante ne nag ay candidat lañ war a dem ci jogante njiitu réew mi ndax gis nga ne loolu xëy na pexe la ngir rek ñu mën a annuler ajum élection présidentielle bi la. waaw moi je pense que groupe la boo xam ne parti ñu ko constitué. waaye li ma bëgg wax mooy euh, xeex pour aar démocratie waroon nekk rek xeexu parti politique xeex la boo xam ne citoyen ñoo ko war a mëne ndax euh, démocratie droit la boo xam ne euh, maanaam yoon moo ko jox citoyen kon citoyen ñoo war a mobiliser wu fexe ba démocratie Sénégal mun a dox ñu bàyyi di ko saax-saaxe ni nga xam ne moo loolu moo xew tey donc je je crois que waroon nekk manifestation F25 F25 xëy na ñoom mun nañu béy seen waar ci ci ci ci ci maanaam xeex bi waaye citoyen ñoo ko def ñoo ko war a def citoyen ñoo ko war def soo gisee keroog bu président prononcé discours am vraiment citoyen sénégal yi à l'unanimité à part quelques-uns yoo xam ne ñu ko witti Macky Sall amay teranga n'est-ce pas Sénégal yi dans la grande majorité n'est-ce pas dañoo vraiment vraiment affaire bi daf leen métti woon daf leen métti woon kon ñi nga xam ne mbir mi daf leen métti am nañu droit dox ñaxtu wax ko n'est-ce pas pouvoir public dégg ko adduna bi dégg ko. alors bëri na nag ñoo xamante ne ñoo ngi dal ci kaw Macky Sall ginnaaw euh, waa États-Unis euh, France gis nañ ne euh, moo ngi bëgg rek mu respecter li nga xamante ne moo jëm ci calendrier électoral bi li mais adduna bi yëpp adduna bi yëpp moo koy blâmer tey du rek France ak États-Unis mais adduna bi yëpp tey moom ñoom ñoo koy blâmer parce que vraiment euh, démocratie Sénégal nekkoon na vraiment euh, fii ci Afrique bépp saa yu ñu war a wax ay démocratie bi exemplaire ci biir Afrique rek Sénégal la ñuy tudd kon il a été important pour partenaire u réew mi que Sénégal continue di nekk une démocratie exemplaire te loolu moo tax sax si lu ñu bëgg ci ndimbal rek ci wàllu koom-koom euh, dañ ko daal di am mu yomb parce que réew bu stable la woon réew boo xam ne euh, kenn mu mun foon séntu benn crise politique kon euh, loolu dañ ko war a préserver ndax partenaires yi loolu la ñu bëgg te partenaires yi c'est normal que évidemment ñu yëkkati seen baat ñaawlu li nga xam ne moom moo xew tey. alors ba loolu waral sax daanaka Macky Sall jamono ji moo ngi woote jàmm ngir rek tamit lépp mën a jaar yoon ginnaaw communiqué bi nga xam te ne tukkee na ci conseil euh, di ministres bëgg tamit libéré ñenn ci ay détenus loolee lañ jot a jàpp waaye tamit loolu est-ce que mën nañu wax ne yaakaar mën na judduwaat. waaw mais je pense que woote jàmm bi ngeen moom lay def nii. Eh, maanaam mënoon na ko def ci dialogue bali bi nga xam ne defoon na ko waaye ñëpp déggoon nañu ko ci dialogue boobu eh, woo ay kilifa y compris ay kilifa diine ci biir pale bi eh, te ñu fay kaddu kaddu yoo xam ne. kenn mun leen mun xaar kilifa muy muy tonni genre kàddu yooyu <laughs> maanaam ku ñëw ci dialogue bi ku sa ndey mu aaye loolu la doon wax foofu ma gisay kilifa yi ki bàyyi kilifa di ñëw di ko tàccu vraiment du doon lu ñaaw loo xam ne euh, maanaam xaaruñu ko ci ci ci gémmiñu président de la loolu dafa doon wane ne moom jubluwul pour def un dialogue inclusif ndax dialogue inclusif soo ko bëggee da ngay talal ñëpp loxo n'est-ce pas pour que ñëpp mën a ñëw def bépp effort boo xam ne mu a mun a convaincre nit ñi de ta sincérité pour que ñu mën a ñëw waaye loolu yëpp def ko d'ailleurs ñun ñii am na proposition am defoon nañu ko jottali leen ko waaye proposition yooyu yëpp n'est-ce pas euh, dara n'est-ce pas jël ñu en compte ñaar affaire rek la la la dogal booba mooy naka lay fexe ba andiwaat Karim Wade ak Khalifa Sall ci compétition électorale exclure Ousmane Sonko donc du nit bu ko xam ne bëgg na dialogue eh, eh, dialogue bu mu woote tey moom la waroon def boobaa eh, dialogue bu inclusif hmm? te su ko bëggoon mënoon na ko am. su demoon gis tey su demoon jamono yooyu gis Serigne Mountakha gis euh, sëñ Babacar Sy Mansour gis euh, cardinal Benjamin Ndiaye nee leen dama bëgg a woote jàmm maa ngi tàllal opposition bi yëpp euh, sama loxo n'est-ce pas dama bugg ngeen dimbali ma pour mu organiser élection dialogue boobu kilifa yooyu tey suñu yëkkati seen baatu wax gisuma ban acteur politique Sénégal moo leen mun a ba wàcc. Eh? gis nga ban citoyen boo xam ne mun nga taxaw ne doo respecté maanaam consignes yi nga xam ne wala boog ñaan yi nga xam ne moom la kilifa yooyu def loolu yëpp defu ko defu ko kon euh, oh, oh, daf ñu teg ci tey situation impasse impasse mooy dafa <laughs> bëgg prolonger son mandat loolu nag pour légitimer ko daa bëgg woo ñëpp dialogue pour mën a légitimer euh, maanaam report bi nga xam ne moom la def di report bu bu doy waar parce que dee report ñetti weer la sa wala ñëpp report jundi juróom-benn weer mais yow da nga da nga da nga prolonger ton mandat de presque un an. de presque un an. alors. Euh, donc le, le 2 mhm. avril <laughs> on va avoir des problèmes. t'as de problème. alors li jëm nag gis nañu réeroo bi nga xamante ne euh, amoon na ci diggante mag euh, ki nga xamante ne mooy Amadou Ba tey mu dellu si euh, renouveler confiance am ndax gis nga ni xëy na stratégie bu mu lal la. waaw damaa wax d'abord ci ci nga xam ne ñoom la jàpp tëj ci biir kaso di wax ni ñooñu yëpp ah ñoom yàgg na di ko wax ñooñu ils sont de façon arbitraire dañ fa nekk n'est-ce pas ci coobare Sall Macky Sall moom moo digle procureur procureur yi surtout procureur Dakar yi pour que képp xam jàpp nañu la rek dañ la yóbbu instruction dañuy fexe bi yóbbu la instruction tëj la nest pas pour nga mun a noppi pour nga buñ a bañ a bokk ci contestation loolu moo daal ku mel ni Alioune Sané boo xam ne teg nañu ko tëj ko ci biir kaso te teguñu ko teguñu ko ci dara donc ce sont des personnes détenues de façon arbitraire te kenn warul sarax sarax sarax sarax lu Macky Sall pour mu bàyyi leen dañu war a exiger pour mu bàyyi leen n'est-ce pas et vraiment li nga xam ne moom lay euh, digle tey ministre de la justice pour que euh, mu jëlee matuwaay pour mu leen a bàyyi mais ñun loolu la ñu woote woon au mois d'août pétition bi nga xam defoon nañu ko fi te ñoom ñu nga ñi pétition boobu mu woo ay soutien am ñu def beneen pétition naan dañuy contre pétition boobu mais loolu lañ ko doon laaj en tant que président mu jox ministre de la la justice ay digal n'est-ce pas kooku instruire ay procureur ñu jëlee matuwaay bay y compris nga xam ne mu ngi doon def grève de la faim ñëpp ragal ne bakkanam mun na ci des. Eh, mais mu tëx jàpp rek kon tey il est en appliquer exactement loo xam ne moom lañ ko laajoon kon avec plus de six mois de de de de décalage et après beaucoup de dégâts n'est-ce pas euh, dans le pays kon euh, vraiment euh, il faut il faut il faut vraiment que mu nekk sincère ci lu muy def xam ne askan wi munu nous sommes des citoyens majeurs te munu fi nekk évidemment di def li ko ne def ay maa tey ba pare dellu su ne dama bëgg jàlloo. Mhm. léegi nag di ko demoo seen affaire la seen biir ñoo ñoom ci biir affaire seen affaire la eh, waaye man su ma nekkoon Amadou Ba am na benn jàngat boo am da ko daf ko waroon def ci Macky Sall moom ci boppam n'est-ce pas ndax Macky Sall bi ñu ko commencé xoxotal PDS li mu defoon mooy delloo seen mandat yépp n'est-ce pas den samp ndëndëm eh, loolu tax nag Sénégal yi amul sympathie bu bëri ci moom n'est-ce pas mu capitaliser ci sympathie boobu ba nekk tey président waaye yow ñëpp yaakaar ne ñu ngi lay xeex ci biir parti bi en tout cas say partisans yëkkati nañu seen baat ne ñu ngi lay xeex n'est-ce pas nga ne damay toog rek parce que dama bëgg a continuer nekk premier ministre di def inauguration et cetera di dem di ñëw je pense que loolu vraiment euh, Soudé il était un politicien avisé. n'est-ce pas euh, du ko nangu mais encore une fois seen cuisine interne la euh, li ci am rek moom war na ko assumer. alors est-ce que mën nañu xaar yi tamit beneen ajum élection bu ñu yeggee ci fukki fa ak juróom ci weeru décembre atum 2024. mais mënu mënuñu exclure dara mu <laughs> mënuñu exclure dara parce que euh, li nga xam ne moom moo xew tey moom la ñuy wax glissement soo demee Afrique centrale dañu naan glissement glissement boobu nag généralement su amee benn yoon day am ñaari yoon dara amuñu benn garantie. que su ñu demee ba le mois d' octobre 2024 Macky dafa créer encore beneen situation pour que mu reporter élection yi en 2024 donc en 2020 en 2025 amuñu benn garantie eh, moo tax report bi franchement du li nga xam ne moom moo gën ci réew mi eh, vraiment je pense que li gënoon ci biir réew mi moo ñu organiser élection à date échue pour que le 2 avril président bu bees muy Amadou baax muy keneen n'est-ce pas mun a toog Sénégal yëpp ànd jàppale ko mu liggéey ñu développé réew mi mais moom su buggee toog par force ni mu ko defee nii euh, parce que yaakaar na général Moussa Fall yaakaar na Bokar Yàgg bugg a toog ak quelques procureurs pour bugg a toog mais il aura un problème de légitimité parce que président wu Sénégal Sénégal yi ñoo koy fal suffrage universel direct assemblée nationale Sénégal du fal président ba di prolonger son mandat citoyen ñoom ñoo koy def kon boobaa dina am légitimité boo xam ne député yi mënuñu ko jox. citoyen rek moo ko mën a jox kon citoyen su ñu retiré légitimité boobu au niveau national amatul légitimité au niveau international ñu ko xoolee ñeneen bët booba acte yi ñu posé du doon acte yoo xam ne ay acte légitime la booba tamit kàddu bu mu amoon pour wax ci baatu Sénégal au niveau international même suñ ko invité su waxee ñu bëri duñ ko déglu. alors lii jëm nag ci caravanu euh, Diomaye euh, Faye gis nañ ne dañ ko arrêté woon euh, stoppé ko loolu lan moo ci sa xalaat. waaw yëpp ay actes ay actes de forfaiture la acte de forfaiture la yoo xam ne yàgg nañ di ko def ñu ngi fàttali ko yëpp nemee ko tuur bi nga xam ne ba parce que bëggoon nañ ko def n'est-ce pas fu ñu jaar ñu jàppaleen dóor leen lacrymogène n'est-ce pas placé leen sous sous en garde à vue loolu gisoon nañu ko fii Euh, pendant le parrainage tamit gis nañu fi tamit candidat yi euh, Khalifa Sall ak ñeneen euh, dem bi def seen tournée ci parrainage boo xam ne yoon moo ko autorisé n'est-ce pas ñu leen di sant ay lacrymogène kon ce sont des actes de fourniture boo xam ne li ñu ci jublu mooy fexe ba opposition bañ a dem dox ci biir réew mi gisaat électeurs yi waxtaan ak ñoom wax leen seen programme loolu la buggul parce que moom dafa bugg a dem même suy demee. na fexe ba place bi ki nga xam ne moom la wóolu ne su ko fi bàyyee n'est-ce pas dina ay ay arrière am maanaam ëllëg du fi nekk di saytu nu mu doxalee réew mi bi di koy topp wala muy toppal njabootam. très bien alors ginnaaw gi nga xamante ne aj nañ élection bi xanaa ibiti euh, université Cheikh Anta Diop de Dakar war naa mën a ne. université Anta Diop de Dakar ñëpp xam nañu ne n'est-ce pas recteur bi fa nekk politicien la. politicien la boo xam ne dafa nekk di appliquer décision yi nga xam ne moom la ko Macky Sall digle Macky Sall buggul ñu ubbi université Dakar parce que dafa ragal ne étudiants su ñëwee Dakar n'est-ce pas boolu université n'est-ce pas université dafay daal di nekk comme toujours un foyer de contestation loolu moo tax bëgguñu ubbi université Dakar jëlee kay prétexte que am na ay yàqu-yàqu yu fa nekk mais yàqu fa nekk chapiteau euh, fac de droit la loolu mën nañ ko defar euh, ci benn semaine wala ñaar wala ñetti semaine hmm, boo jël prétexte ci loolu fermer université je pense que lu doy waar la kenn musu ko gis ci àdduna euh, fermer université di compromettre say avenir u jeunesse réew euh, ci euh, marché d'emploi bo xam ne tey c'est marché mondialisé eh, xale bi nga xam ne am na diplôme Sénégal dafa war a def concurrence ak am diplôme Zimbabwe Afrique du Sud wala Maroc n'est-ce pas ngay ngay ngay ngay fooy seen avenir pour des raisons de politique politicienne eh, loolu mu xew avec ce recteur Mbaye et eh, qui qui applique à, à la lettre les les de Macky Sall nous dénonçons cette fermeture là et on demande à ce que ñu ubbi université bi bu gën a gaawee pour que xale yi jàng. alors ci xale yooyu sax la ñuy des nag léeg-léeg jàppal bàyyi dafay am ay violence yoo xamante ne euh, lii di jogante njiitu réew mi da koy jur yenn saay muy nag loo xam te dafay impacte euh, ci ñoom euh, ndaw ñi. mag ki dafa war a privilégier ni ma ko toujours la concertation parce que université de Dakar soo xoolee bu baax lan moo fa indi violence. n'est-ce pas ñu nar leen fay seen bourse ñu toog weer bi passé ñaar wala ñaar semaine benn semaine wala ñaar semaine fayuleen seen bourse ñu gën a taale pneu ñu doog a fay bourse yi wala boog Macky Sall jël benn mesure bu impopulaire boo xam ne ñoom ñu bëgg a génn manifester ñu leen doon leen génn manifester mooy day affrontement n'est-ce pas loolu la kon na gérer dëkk bi en en président démocrate fexe ba lépp li ngeen ko dogal mu waxtaane ko kuje gi n'est-ce pas te mu organiser élection libre démocratique bu xam ne ñëpp ci bokk ba pare mu doon élection boo xam ne bu jaar yoon bu transparent ñu ko Abdou Diouf organisé woon en 2000 2000 ñëpp waaye élection yi bi ñu ko organisé non seulement dafa jaar yoon mais Abdou Diouf jëm ci benn yoon n'est-ce pas influencer résultat bi jëm ci benn yoon euh, n'est-ce pas euh, bugg a fuxati résultat yi ko loolu su amee n'est-ce pas comme en dinañu am élection bu paisible boo xam ne benn violence du ci am. très bien Seydi Gassama jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay directeur exécutif bu section sénégalaise Amnesty International ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf jaajëfal